internet Thiaroye TV tey nag ñi ngi fi nga xamante ni mooy ginnaaw raay nee naa leen ginnaaw raay kaa bu rëy dafee am nee naa leen boo xoolee fii tey ni mu mel xam ngeen ne tarkaal la waa ginnaaw raay am nañ lool lool lu leen naqari nee naa leen du ma xuus damay laaj daal di laaj femme bi nga xamante ne mi ngi toog ma laaj ko problème bi nan la demee lan moo xew ginnaaw tey soxna si maa ngi lay nuyu a maa leen di fay affaire bi moom ni mu demee doy na waa daal ñun ñëpp gis nañ ko ndax premier taw bi fi njëkk a am xale yi fii lañ nekk di xuus te loolu rek la dégg nga ñu nekk fi di féey di def lu nekk affaire bi démb man maa ngi fii sax si waañ bi sama doo bu jigéen moo ñëw taxaw nii u fab doomam jékki-jékki dégg xale bu xale bu góor baa ngi dem mi ngi féey nii jékki-jékki muy yuuxu di wax maa ngi lab maa ngi lab maa ngi lab si la woo jëkkëram jëkkëram génna daal dina ko est-ce que du xale yi ñooy yuuxu noonu rek munu ko ah moom daal dégg naa koy wax maa ngi lab maa ngi lab maa ngi lab wóorul dégg nga ñun fi lañ taxaw ba minuit ñun ñëpp fi lañ taxaw ba minuit ñetti xale yu góor ñoo dugg si biir di ko wër wër nañ ba sonn gisuñu ko xam naa ñoo tamit dañoo ragal mu ñoo dem ba ci biir ñu def demi tour ñoom waaye teewu fii lañ taxaw waaw dafa lëndëm lëndëm crise ba pare ndox mi fee la yem gis nga fee kii ba nekk ne euh, nu mu tuddati track bee ñu taf ne bu ñu ne euh, policiers yi dañ ko doon dàqi mu daanu ci biir ndox mi waxuñu dëgg loolu moom du dëgg dégg nga xale bu góor bi dafa doon ci bitig bi la jóge jënd mbuus bu xonq def ci portable am pochette am carte d'identité am lépp takk ko dugal ko fii mi ngi sol ay dàll bot daan na xaara Madiane ñi ne ko abal ne ci tine kii ba pont bi ne mun a déedéet naa aw nii rek ndax mu gën a gaaw léegi nag bi mu demee ba nee nag li ndox mi yem fii bi mu demee ba sori nag si la commencé def nii loxo yi maa ngi lab maa ngi lab maa ngi lab si la kii woo jëkkëram di ko expliqué jëkkëram yaakaar ne xale yi ñoo nekk ci biir di yuuxu rek dégg ñu ñëpp fii lañ nekk nekk nañ fi ba une ci guddi bi ñu xëyee fajar tamit fajar fii la ñu fekk si la affaire bi feeñ jaay kii ñi di jaay ñax yi ñoom ñoo doon romb rek daj ko fekk na affaire bi naan na ko ba loxo yi wow koo def ni yëkkatiku si kaw si la xale yu góor yi daw ñu yuuxu xale yu góor yi génn ko tëral ko fii waaye jógewu si kaw de dafa doon dem buñ ne def policier ko doon dàqeek ñooñu waxuñu dëgg dafa doon demal boppam. dund lu metti lii mooy li fi am démb rek taw bi dafa fees dal ba fii la yegg si si nit ñi képp ku fa dugg fii la la yem waa ji la fii tineen kii bi la ñu ubbi mu mu dugg ci surux si la si la labe gisuñu ko gisuñu ko ba bi ñu ngàccee kii ba pare dañ ne ah am na ko lab fii ñu génn ñun ñëpp yuuxoo mu metti ni trop trop trop trop man manuma koo xool damaa taxaw fii damaa jooy ba. waaw fii laa dëkk kay Cité bi fii laa dëkk kay man wax nii léegi léegi sama sama rakku papa la moo sama papa ñoo bokk ndey waaw ndax ndax démb ay 20 ñu man ñu ñu ngi woon fii fii nii di tibbaay suuf di tek si buntu kër yi. xam mais daa mbenn xale boo xam ne dafa ñëw daa nañ am na kuy lab fële am na ku daanu fële yaa ngi dégg ba ci grand koñ beeg ñun ñëpp dañoo demoon dugg foofu noonu di ko xool mais gisuñu ko mais si lañ woo policiers yi mais ba léegi ñoom defuñu réaction defuñu dara ndax boo xoolee ñoom bu fekkoon ñoom ñoom loolu ñor na leen ba ñu génnee parce que côté bële nële dafa feesoon dellu dem ci guddi fee dafa feesoon dellu dellu dellu côté beenee ñoom xam nañu ñoom war nañu xam loolu mais ñoom defuñu réaction ñëwuñu defuñu dara yaa ngi dégg léegi par la benn grand bu dëkk fële

moy police yi yi ben defuñu sen devoir ndax buñu xamé xamee kala ñom avez fi day mais des xamé commencé taw mu commencé pourquoi pas moom mënu jël élément tek leen gens jël ay yeneen élément tek leen feulé ku ñu nga passerelle bi mais da nga leen di wo duñ ko def fuñu ñu lañuy tok fi agression am sont may Touba di ñew ni la jaar femme bo xamné xam agressé bu sont man dañ ko lay wax ni passé fii maanaam sécurité bi mu fi war a am amu fi am fi fii amu fi sécurité am amu fi te da ngay léeg gis ay oto yoo xamante ne ñëw fii dañuy perte repère maanaam ni ñu ko deferee ci boobu moo baaxul oto de lu ñu leen wax loo leen wax du dugg seen nopp la leen di wax lan loolu da ngay jooy ba dee ñaxtu ba dee Sénégal mi ngi nii rek ku ma am ndey la ku ma amul ndey kese moo fi am. Ah, daa am ay li ngeen di jooyte boo leen gisul saafara lan lan ngeen fas yéenee def. ah toog xaar yàlla ndax ñun moom bañ juddee boo léegi moom loolu lañ fi am da ngay kaas ba sonn